mbokki Sénégal mbokki Sine ak Salom, mouvement and Soukali, suñu commune ak Mamadou Faye li leen Moui commune bu al Santal ñu tuddee le soldat de l'éducation Mamadou Faye séeréer Oga ogga Tik tig tig taxul ma ne yi commune bu al Santal premier postam mu Kofenga ko Momone nga commune bu al Santal Djangalefa. fa Moudem mu fa jógee mu dem dëkk at Tejini, directeur école Bungata. Ngata Pare Goumade suñu fête indépendance ñu jox ko raaya buy wone ne moom moo nekk enseignant bi dàq a jàngale ci commune bu Nioro Alsanta kon mbokki Sénégal ku ñëpp tufli nag da toy. tooy Mamadou Faye nekk leader bi nga xam ne moom la mouvement bi tànn muy ànd suqali suñu commune ak Mamadou Faye ma ne mbokk yi may leen ma tuuti ma jox leen seen programme ci weer wi troisième jour yi tabaski final ci dëkk boobu ñuy woowee Ngayeen ñu tuddee ko ki nga xam ne moom mooy Mamadou Faye ñu gën ko xamee ci Moussé Faye ba léegi ci troisième jour yi tabaski dëkk boobu ñuy woowee ñëwee sanc mbay si muy am nag jumelage boo xam ne ñëpp a koy xaar ñu tuddee ko ki nga xam ne moom mooy monsieur fay waaye pare gu ñu de ba léegi si troisième jour yi tabaski dëkk boobu ñuy woowee Senghor ñu tuddee ko fa conférence bu mag a mag boo xam ne askan wa yëpp a ngi koy xaar ma ne mayati leen ma kii mooy jàmbaar quatrième jour yi tabaski ba nag foofa nag fa la mbir mi nekk bés boobu la ñuy lancé seeni mouvement bi ñuy woowee mouvement ànd suqali suñu commune ak monsieur Faye ñu ngi koy defee nag si dëkk boobu nga xam ne mooy Simon quinze heures bés ba dina am ay discours ay animation ay surprise yu bëree bëri dina am si bés bi kon préparé leen ko yéen ñi may déglu ñu si woo ñëpp ku bëgg a xam ban yéene la mouvement bi am seeni programme kon ñu ngi leen si woo yéen ñëpp président bi nag di Lamine Gueye premier vice président Souleymane deuxième vice président nekk Babacar ñoom ñoo si woo askan wi yëpp nag ma ne mbokki Sénégal yow mi may déglu te nga bëgg a leerlu si bés bi wooteel si 77 410 95 02 da nga jot ki nga xam ne moom mooy Waly Ndiaye ñu yore seen communication fay mii daal fay biram yow la Sénégal di doon xaar yow la commune bu Nioro Alassane Tall di doon xaar rawatin nag askan wa fay yeewoo ma ne ab mbir daal bu ko jox sa waay waaye jox ko waayam man di jëm ak bés ba ku ma fa déggaat ne ma mas sa waay te nag lu ne faax kenn du ko jeex